xel lu doy doomu aadama bi ko sunu borom di sàkk ci àdduna ak ginnaaw bi sunu boroom programme àddunaam wàcce fi ay bàyyi ma bàyyi leen ci àll bi ñuy dund seen àdduna wàcce fim ndoxam bàyyi ci jën yeeg xeeti rab yi ci aju yépp ñuy dund seen àdduna doomu aadama ci àdduna sunu borom bi mu ko fi wàcce it da ko fee wàcc ngir mu jaamu ko waaye ci biir jaamu gi doomu aadama war ngaa xam bu baax a baax sa dund gi ñaata xaaj la dinaa la ko leeral incha ba nga man di ci bàyyi xel bu baax a baax bi jiitu boo juddoo rekk nit ngay doon boo demee ba sa dund xaaj nga nekk ku nite sa ñetteel bi xaaj bu mujj nag ci ngay nekk niite soo ko toftalee day nekk nit nite ak niite diggante bi nga juddoo am benn fan ba bi nga amee fanweeri at nit kepp nga nit kepp nga gi mooy ci ngay jaar ci nàmp ci boot ci teete la jàngal la dox ngay raam ci ngay jaar ci dugg néegu góor ak ya cay aju ci ngay jaar ci njàngaan ba sa xam-xam bënn kon foofu nit kepp nga xaaj boobu bu jàllee léegi nag nga dugg ci sa ñaareelu xaaj am nga sa juróom-benn fukki at léegi su boobaa foofu ak nite lañuy ñuy xaar ci yow nite nite gi nag mooy la nga nekk yoon ci fanweeri at yi njëkk yépp mbind la moo xam ne danga koy mokkal bi nga amee juróom-benn fukki at léegi nekk nga ku nite nag nga ne xaaral ma segg li baaxoon ca la ma doon dund fas ko yéene booleeg lii ma nekk nii la baaxuloon ma gas ba mu xóot suul saa bu ma gisee sama njaboot na ca ma mën a toog ak ñoom waar leen ca ba ñu mën a génn ca loolu xam ne lii baaxul saa bu ma leen gisee ñu nekk ca lu baax la ma nekkoon te maa leen ko gën a xam ndax maa leen ko njëkk a dund ma woo leen tette leen ci jaarale leen fa ma ca jaar ba tey jii fii ma sunu borom àggale ci samay juróom-benn fukki at kon foofu ak nite rek ci ngay xalaat ni wuti kër dëkkal sama njaboot war na ma nga dem wuti ko ci ngay xalaat ni fii fii ma toll nii jaamu yàlla ak sax ci njub képp laa mën a def ngir sama njaboot mën a roy ci loolu ba buñ màggee ñoom it bañ a am dara tolof tolof yi àdduna di ko jëf ñuy gis ba tey ci nite googu ci sa juróom-benn fukki at ci ngay tàggatee saw yaram ciw colin colin gu yiw goo xam ni ku la gis man la ci roy ci ngay tàggatee sam xelit ba képp koo xam ni am na lu muy mébét wala lu muy waxtaane doyloo ci sa xam-xam ci say juróom-benn fukki at yooyu ndax léegi ku nite nga boo génnee nag juróom-benn fukki at yooyu nag léegi dugg nga ci sa ñetteel bi xaaj te mooy sa xaaj bu mujj muy sa juróom-ñeent fukki at dugg nga ci xaaj boobu foofu nag ak niite lañuy soxla ci yow ginnaaw bi nga jógee ci nit wàcc ci nite kon léegi wàcc nga ci xaaj bu mujj bi muy ak niite kon niite googu nag boo fi agsee àdduna amatul dara loo xam ni mënati nga ko fee wone ci njàmbaar ci kàttan ci sañ-sañ ci lépp foofu ak niite rek lañuy xaar ci yow niite mooy olof dafa léem ne gone su bëggee gudd fan nay fonk mag ña te di leen jox cër waaye dafa delluwaat léem ni mag jar naa bàyyi ci dëkk waaye muy mag mu bari njariñ ndax moom moo fekkee bërki démb démb àndaat ak yow tey mag moomu nga nekk nag war di niite foo fii nag xale yi dañuy soxla ñu lay jege nga leen di waar ci àdduna fi àdduna toll àdduna liñ fi bëgg a boole te suñu borom boolewu ko ci liñ ci bëgg génne te suñu boroom dugal ko ci waaye tamit saa soo xëyee rek yaa ngi gën a bàyyi xel ak dee ndax dangay xam ni àdduna fi mu toll nii wutatoo fi dara loo fi amutoon moom jeex na doo ko fi amati loo fi amoon it da ngay xëy di ko gën a ñàkk ndax sa njaboot ñooy wuutu loolu lépp kon doomu aadama boo dee dund nekk ndaw ci say fanweeri at na nga bàyyi xel sa ñaareel bi xaaj da ngaa fas yéene jóge ci fanweeri ati xaaj bu njëkk jëm ci ñaareelu xaaj bi muy ak nite boo tolloo foofu tamit na nga bàyyi xel ñetteel bi xaaj bi fas yéene nekk kuy niite ak niitukaay nag dañ ciy soxla lu leer nàññ ba lëndëm goo ko teg lépp lu fa nëbbu woon feeñ kon loolu lañuy ñuy doyee mag ci ak mu jëm yal nañu yàlla may ak dégg akuk topp xel lu doy